réew mi mën a dem ci kanam kenn ku ci nekk loola da nga ci war a nekk parce que ku foog ne état rek moo war a mun a defar réew bon xàmmeeguloo état nit ñi ñoo leen tànn teg leen fi pour ñu yoral ñu suñuy yëf yi nga xamee ne ñépp ko bokk kenn ku ci nekk lay sa cër ñoom it ñu fexe ba nanga ko war a amee ñu yokkal la ko loolu lañ leen di doyee bu dee waa Ndakaaru lii seen cër ci état état defal leen ko ba mu mat sëkk région bu ci nekk lay seen cër état defal leen ko ba mu mat sëkk loolu la ñuy doyee état doyewuñu ko leneen lu dul loolu loolu nag bu ñu koy defal ñun ñi ñu koy defal dañuy nekk ñoo xamee ne dañuy wommatu ci ginnaaw état fokk ñu ommatuñ seen gannaaw bu fekkee ne ommatuñ seen gannaaw li ñu bëggoon ba dul nekk te it ñu xam ne réew mi ñiñ ko jox lañ ko jox ñiñ ko joxul joxuñu leen ko waaye ñun ñépp ñoo ko bokk ñu gis ne ki nga xamee ne moom la ñu tuddee opposant lan mooy rolam ci réew mooy lan mu fexe ba lu mu gis ne lii du noonu mu ne du noonu waaye luy noonu mu ne noonu la waaye du noonu rek te doo wax lenn lu tax loo xam ne li day tax ñu dem ca kanam loolu amalul njariñ réew ki ñu ñi ñu ki ñu jiital tamit li ko lañ ko sante mooy lan wa saawiruhum fil amr dañ ko wax ne muy waxtaan ak nit ñi waaye su waxtaan ak ñoom ba pare su fekkee ne xelaat yi ñu joxe ak bosom bosom la gis ne moo gën a wóor na jël bosom wéeru ci yàlla def ko parce que loolu kenn waxu ko yàllaa ko wax wa saawiruhum fil amr wa ida azamta fa tawakkal ala allah soo gisee ne sa xelaat moo la gën a doy yàlla nee na wéerul ci man def li nga def loolu la yàlla santaane waaye nag waxul ne yow kenn rek nga yor